Bassirou Diomaye Faye dafa jël dogal ngir tegaat ci yoon lépp lu jëm ci wàllum yorinu suuf si ci littoral bi ba tax na mu dakkal bépp tabax bu amoon ci tefes gi ñeel corniche bi ak bande des filao tabax yi nga xam ne ñeel na ay travo publics rek la ñuy bàyyi muy wéyandi laata ñuy xoolaat lépp lu jëm ci wàllum contrat yi ak titre foncier yi nga xam ne jot nañ ko ci site yu ni mel loole nag li ko waral mooy capitalu Sénégal bi di Dakar dafa bëri ay suuf tey itam géej gi kenn mënut a cee jot ndax tabax yu bëri yiñ ci nemmeeku ba tax na régime Diomaye fas yéene xeex ngir tegaat lépp ci yoon loole sax bokk ci diggéey mi nga xam ne digle woon nañ ko ci campagne électorale bi kii di directeur général bu impôt et domaine di Abdoulaye Diagne génne ab bataaxal ni ki démb di leeral site yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci dogal boobe lu toll ci ñaari fukki sit li ko jëlee Dakar Saint-Louis jare ko Thiès Mbour wala sax Bambilor kii di yi de di xamle ne njiitu réew yi li ñu bëgg mooy delloowaat jàmm ci yenn zone yi nga xam ne xeexum suuf bëri na fa wala mu ngi fay waaja a juddoo loole nag doon ab urgence bi nga xam ne nguurug Diomaye fas na ko yéene xeex waaye nag su moytuwul dina itam ubbi ay contentieux judiciaire yu bëri te cher ndax nag tabax yi nekk ci littoral bi lu ci mel ni corniche west mu bëri ay immeuble ay villa wala sax ay hôtel ay investisseurs ñoo ci def seen xaalis te itam ñu amal ay souscription bancaire loole di wane ne def nañu li leen war ngir jot ci ay kayit ngir mën a tabax loole nag tax ba dogal bile su moytuwul nguuru Sénégal dina ci ñàkk xaalis bu bëri te jamono ji mu ngi xeex dund gu cher gi te itam di wut xaalis ngir mën a jox ay ndàmpaay ñi nga xam ne loru woon nañu ci xeexu politique bi amoon ci atum 2021